vraiment loolu la et l'erreur aussi qu'il faut pas commettre et je pense que sëñ Ousmane mu ngi koy wax le prochain président du Sénégal il va être le président buy non mais dès le début il va être fatigué parce que jeunes yi nii <laughs> ah ça waay ah dañ non jeunes yi dafa am li ñu ils ont soif de quelque chose et loolu boo ñëwee ngay tendeefal rek tout de suite dañu lay wan ni affaire duna parce que ah, gis nga 2012 bi biñ fi falee Macky Sall ñun au bout d'un an dañ ne diggee bor la gar ca wax non non bàyyi leen ko mu liggéey loolu dootul am de <laughs> loolu dootul am pour kii donc du coup euh, les défis man je plains hein je, je vraiment kii euh, gagné élection yi ci contexte et puis ci contexte bi nga xamante ni aussi y des opportunités mmh, pour man vraiment Euh, loxo yi bu setee. ñu mën a ñuy confier les missions. ñu vraiment ñu ragal yàlla. te xam sacerdoce la. nga gis ay ministres yoo xamante ni dañ leen di fal. lu mm. ñu nekk ci seen i salon. Mm. di feete di mm. tëggatu di naan nos soucis d'argent sont finis tekki nañu ay xawma lan ak lan ngay gis ministre yu ñu yooyu bu jeexee. bu njëkk gars yi doon séddee waaye léegi ñun ñooy séddaate képp ku ñu fal rek nga nekk ci tiitaange xam ni tu es au service de la nation. xam xam donc vraiment dañu war a dem ci yooyu. ñu fal la nga eh, tiit eh, surtout supprimer la voilà ah, tu vois sénégalais yooyu ñu ngi fi gis nga sénégalais yooyu. am eh, doole trop. kuñ bëggul doo dugg. kuñ bëggul doo dugg. mais bon bon <laughs> waxtaan bi neex la trop mais ñu ngi may wax ne léegi tey ma yegg ci njeexital gi te mënoo fee toog itam. te loolu amul am na question yoo xam te ne ni gars yi ñoo la ko doon laaj mais donc bëggoon nañu xam itam Alioune lii moom question yu personnel la mooy bi nga nekkee ca kaso ba euh, naka nga ko dundee donc. Euh, ndax gars yi génn nañu di di wax naan métti na maltraité nañ leen dóor nañu leen yow ndax dundoo loolu. non non non dun dunduuma loolu dunduuma loolu euh, xam nga man moo fi nekkee di wax sama cas alors qu'il y a pire que ce qui s'est xam nga loolu aussi <laughs> man daal sant nañ yàlla quoi on est allé là-bas injustice moo ñu fa yóbbu euh, on était très libre dans nos le l'enjeu léegi mooy nan ngay nekkee ci kaso bi ak nan nga koy vivre. Mhm. enjeu wu sa santé nooy tëddee sa kaso ko. nan nga koy tëddee. sa voilà nan nga léegi jël man la quoi ay termes <laughs> jël man man léegi rejoindre na sa team beeg jiili. non c'est c'est ça. <laughs> donc loolu on était on était on était on était enfermé quelque part mais dans nos on était libre. waay donc euh, pour des militants comme nous moi je le dis léeg samay mbokk dañuy kii je leur dis c'est l'une des. plus belles expériences qui me sont arrivées ci sama hmm. dund quoi parce que d'abord man en tant que hmm. nit nit li ma ci jànge nit dans mon en li ma jànge li ma ci jànge man pour ma parce que man jàpp naa ni Aliou Sané bi dugg woon rëbës bokkut ak Aliou saani bi génnee rëbës. Mhm. parce que li ma fa jàngee géej la. Mhm. Mhm. d'abord man par rapport a moi-même man man guddi yow rek nga wéet sa kaso yaa koy dundal sa bopp. te avocat li mu la jàppale mais yow yaa koy dund dans chair donc tu te mets face à toi-même sax ngay ngay remettre en question ci yu bëri. ça te permet ngay def le point ci sa vie. ça te permet juste des choses simples. man toog naa fi depuis xaw ma kañ laa gëj lire un ouvrage jeexal ko. Hmm. parfois da ngay yor benn livre tu hmm. mets trois mois à le lire mais kaso la ngay mais attends chaque semaine on me rentrait cinq livres hmm. mais l'autre chose mooy ouvrage bi ma commencé woon di bind mais di ci traîner parce que aw ma jot mais bouclé naa ko ba teg ko nale di xalaat leneen tu vois euh, voilà dama doon tendeefal sport bu ma ko defee tey benn ñaari balaa ma ko defaat mais être bi ma nekkee prison benn talet sow moo doonoon sama coach sportif di di sport régulièrement bi ma génnaatee laa xaw bàyyeeku bàyyeekuwaat donc donc donc walla mm, voilà globalement man personnellement noonu laa ko amul dara avec toute la dignité maintenant maintenant ça m'a permis de voir des choses et justement Euh, de de de de comprendre réforme aussi ñu war a indi ci système carcéral du hmm. Sénégal. système pénitentiaire non gis ngeen daan naa seetaan naa Kunta Kinte. Hmm. gis naa ci bateau yi nit ñi ni ñu fa nekkee. mais boo demee ci yenn chambre yi Rebeuss c'est pire que ce que tu vois dans ce film là. Hmm? biddeey c'est inhumain. mais moment moment bi nga fay nekk ñaata ngeen ña Rebeuss ñaata la woon. non normalement c'est 1500 la war a jël. non non non man bi ma 500 détenus. non non non 1500 c'était à 3500 détenus ñenn ñu ngi naan sax ba pare ba pare il faut diir il faut dire aux Sénégalais que ni rëbës fi mu nekk noonu ay anglo la woon. fas lañ fa doon denc euh, gis nga gis nga réforme et bokk na ci ay man daal dina ci liggéey lu bëri. pour le prochain gouvernement qui arrive. mbirum réforme générale du système. carcéral carcéral c'est important. déjà réforme yi ci au niveau de la justice. war a am mais le système carcéral globalement. pétition la sénégalais war a def ñu raser pour dignité rëbës boo xoolee mur yi ni mu bindoo sax mur yi da ngay xam ne lii rëbës doit être rasé bi ñu koy kon construire est-ce que c'était pour que des des personnes soient non non pour fa ay fas la non c'est mënoo ko wax xajut ci ci donc loolu aussi bokk na ci yi nga xamante ni yàlla yóbbu na ma fa ci taxawaay bi ma am peut-être que c'était pour voir tout ça et que ma am ci taxawaay mm-hmm. man loolu jàpp naa loolu quoi mm-hmm. et puis euh, le reste aussi ça permet de mesurer aussi et voilà tu vois tous les témoignages tu vois taxawaayu nit ñi di am tu vois yu ci bëri. Hmm. donc euh, non non non non. on l'a vécu très peu. et puis avec avec un mental très fort. Mmh. avant ouais. pendant et après. Mmh. voilà au moment Parce où parce que à 48 heures daf ma woo ne ma éclaire. maa ngi lay dénk njaboot gi de man xam naa dans 48 heures gars yi mën nañ ma yóbbu. ah bon non non je t'assure. non ah il avait c'est comme ça qu'il me l'a dit. non au bi mu nekkee ci biir kaso bi bu ñu ñëwee ñun. di ko bu tëllee. non dama naan vraiment waa ji du nit quoi. Ah, kilifa mais éclair kilifa. mais éclair yow doo bàyyee sa kii. non mais c'est-à-dire. Ah, boo ko def loolu ba pare avec avec aussi l'aide de sa femme je tenais à le dire. nous avons des femmes ki nous yoo xamante ni. qui nous supportent quoi dañuy soutenir ci sunu période yooyu quoi. sa femme des fois man dama ko doon sax daw. une femme courageuse. Mm-hmm. boo xamante ni moom moom mooy mais kilifa mais yow est-ce que lii fii temps yi gisuma lii de jë ma ne non mais attends kii est-ce que <laughs> est-ce que jëkkër ji ngi état sérieusement quoi. Mm-hmm. oui en même temps j'ai eu la chance d'avoir une une épouse bon militante la. n'oublie pas que à la base ñoom ñoo mm. sos esprit Y'en a bu Paris ak bu Bordeaux man ci contexte boobu laa ko xamee elle militait déjà dans Y'en a marre donc j'ai la chance d'avoir une épouse militante boo xamante ne xam na risque yi l' important rek mooy à chaque fois na xam c' est quoi les risques qui arrivent et que ñu a anticiper. Mm -hmm. mais man une semaine avant mon arrestation bu ma nangoon dajeek yenn autorité duñ ma jàpp. waay ah bon encore si tey sama gars yi j'ai dit à quoi ça sert. tey sama gars yi une semaine avant quelqu'un m'a appelé pour. balaa ñu la yàgg foog ñu a ah, am na sax ñu jaar ci man. j'ai dit j'ai dit à non. tey sama gars non bi ma fa nekkee. donc ñoom finalement bi ma fa nekkee ma bis bi ma duggee. parce que bañ nga bi ma fa duggee bis bi ma fa duggee des gens sont venus me voir ñu ñu jeg ne ne écoutez dañu bugg dem seeti président. waay ma ne leen santuma ko kenn. Mm. santuma ko kenn santuma kenn mu dem ñaanal ma quoi que ce soit. Mm. ba ci sama soxna. Macky mm. am na ñu ko woo ne dañu bugg dem seeti Macky Sall. pour mu mm-hmm. bàyyi Aliou Sané. Mm-hmm. Mm-hmm. nekk ci bitim réew. mu ne leen mukk bu fi nekkoon déet lay wax donc man déet laa wax. il faut que loolu mu deñ ci réew mi. Hmm. suñ la bëggee baal il faut nga waxtaan <laughs> c'est compliqué en tout cas donc euh, courage ah waaw nos encouragements félicitations également ci euh, idée wala xalaat wala ni nga mën a taxawee ba circonstances i fekk la fi nga dund ko tamit avec responsabilité en tout cas yal na la yàlla taxaw donc Amen. bon succès pour la suite. Hmm. en tout cas on tenait vraiment à vous remercier merci beaucoup du fond du cœur looy jeexale Alioune mais kontaan mais vraiment ci jotaay ju am solo ji. Hmm. ak <laughs> vraiment qualité bi nekk fi j'espère que. euh, c'est c'est un cadre qui va être maintenu même en dehors du Ramadan. Mm-hmm. parce que vraiment riche na torop. oui oui euh, et ce beaucoup. sera un plaisir de revenir encore. revenez quand voulez. xam nga et merci beaucoup Kilifan. Ouais. de m'avoir donné l'opportunité de participer à à cette à à jotaay ji. et mm-hmm. di leen encourager aussi ah. pour la suite surtout challenge suba. Mm-hmm. incha allah challenge suba quoi ah pour la presse.